El Hadj Ahmed Aïdara est ce que ñoom jéemuñu am nañ ñuy wund ci seen xel ne lii c' est pour tardel Ousmane Sonko perte loo ko temps ba jour yi nga xamante ni peut être ce son les jours décisifs euh, de l' élection présidentielle de 2024 bu dee am na secteur boo xam ni ñoom seen diggante. Hmm. ak population bi waxuma dafa am écart hmm. mais daa yàqu mooy wàllum justice. ah amul confiance moo amatul diggante population bi askan wi. Hmm. ak lii di justice. amul amatul amatul maanaam bu doon sëy la dañ naan tas na tas na ba tas ba tasaat bu dee tamit amoon na juboo ay toog di waxtaan ak yooyu dañ naan xoolal jaloo amatu fa maanaam mooy secteur boo xam ni mhm. confiance moo fa amatul léegi nag nan la magistrat yi di def ba nga xamante ni nii seen diggante population bi danañu dugalante waat mais xam nga yéen maanaam ni mu ni muy ni muy leeree nii ak ni muy tëddee nii loolu dafa jar mhm. boo ko waxee ñe boo ko waxee ñenn ñi xas la wala ñenn ñi def la léegi léegi indépendance de la justice bi ñuy wax. Hmm. mais am na. naka la amee. indépendance de la justice. Hmm. comme indépendance de la presse rek. <laughs> non am na. indépendance su assemblée nationale am na. exécutif bi am na. Hmm. léegi nag c'est aux acteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di député yi wane na ñoom dañoo libre waaye bu ñu ne la gauche nga ne gauche bu ñu ne la droite nga ne droite man kooku lu ma bokk ci groupe groupe laa la wax. Yewwi Askan Wi. waaw kenn mënu ma ko def loo parce que man dafa am ñu ma yónni ne ma demal. du ma dem topp ay riir di def magistrats yi aussi c' est comme les journalistes yow di nga nekk journaliste rek ñu ne la xoolal eh bu subaa saagaal diw diw nga ñëw toog di attaqué diw. warul magistrats aussi. warul la xoolal defal nangam defal lii am na ñoo xam ne dañoo libre ni ngelaw loolu moom mooy dëgg. très mais diggante justice bi ak population bi moom boo bëggee dégg-dëgg. Ah. ah. ñi acteurs yi de war nañoo góorgóorlu def seen kéemtalaay kàttan ba confiance boobu. Mm-hmm. dellusaat mais mais ay tribunaux yoo xamante ni yow boo ciy dem le sénégalais lambda bu xamul dara ci wàllum justice ñi nga xam ne duñu ay juriste ñoom ñëpp dañuy toog ne eh mooy yow nit ñi xam fu yaa ngi nii di ma posé question naan ma sénégalais yëpp ñi ngi naan bon li ñuy def nii yëpp dañuy xëcc di taaw yi pour kii Ousmane Sonko sénégalais boo fi laaj à quatre-vingt-dix-neuf pour cent dañ naa la waaju du dara sànq ko rek du bokk ci élection yi loolu lañ mais mais gisoon nañu juge bi nekk fële ca euh, instance bu Ziguinchor joxoon dëgg kii di Ousmane Sonko te c'est la même justice. te c'est la même justice. waaw ou bien c'est pas la même justice. nañu dem ba ci kanam. <laughs> en <laughs> tout cas xoolal même ah. la même suba. Hmm. mën nañ ko jox dëgg. mën nañ ko jox dëgg. waaw te buñ ko joxee dëgg mu nekkaat électeur. non déggoo ma de. dama ne mën nañ ko joxaat mën nañ ko sax joxaat dëgg. c' est dans l' ordre du possible recours yi. mën nañ ko joxaat dëgg. gars yi jubilé waat. c' est dans l' ne woy vraiment kii gis nga saba si keroog bi mu bi mu joxee dëgg. <laughs> woy y' a des magistrats indépendants y' a des trucs tàggat justice bi kii ñu puusaat. d' accord ñu demaat cour suprême ñu ngi leen kii nañ seetaan ce qu'il faut peut-être remarquer mhm. changement de de posture bu dee mën naa ko tuddee noonu bu Ousmane mhm. Sonko. parce que am na ay jamono c'est vrai que dossiers yi bokkul. Mhm. mais fii la siisu ne du dem wuyu ji justice. moom Ousmane et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. aujourd'hui maintenant il compte sur la justice pour être rétabli dans ses droits. en mi ngi doon wax lu am solo nee na mën nañ sax suba niki suba jox ko dëgg ba noppi euh, pourvoir en <laughs> cassation yi mën a mën a gën a yokkal euh, dossier bi xar mi karaw. avocats yi loolu la ñu wax du jeex <laughs> recours yi moom du jeex. te li des élection yi bariwul. <laughs> Mhm. donc euh, tant que moom waxuñu verdict final bi peut-être. Mhm. Euh, lu ne mën na am li leer ba leer mooy dañ koo effacer turam ci liste yi. Mhm. mu toll nii nag kan moo ci am avantage ci recours yi est-ce que avocat Ousmane Sonko yi la est-ce que avocat yu état bi la je pense que ni avocat Ousmane Sonko yi ñoo amul intérêt à ce que mbir mi law. parce que turam deñ na. même décision bu ñu mënti jël tant que épuisé lépp. turam du duggaat ci liste yi. je pense que intérêt bi ñu am mooy mbir yi gaaw. Mhm. ñu àtte ko mu jeex tàkk fekk élection présidentielle. parce que amatul de. li garaaw nag mooy. Mhm. Mhm. boo xoolee avocat yi démb. déglu ñaari parti yëpp mooy. yaakaar gi mooy dañu koy continuer rajo définitivement verdict bi suba loolu lay joxe te te te je pense que. xam foo jëmagul sax wala ñi nga xam ne ñoo défendre Ousmane ko dem ba amatuñu yaakaar ci loolu euh, ci réew bu mel ni Sénégal ñuy woote démocratie lu jar a seetaat la. en tout cas pendant ce temps tribune mi ngi wax si président Macky Sall. Euh, tribune yéen kaay tey dafa xëy ci diggante président Macky sàll ak ki nga xam ni moom moo di Birahim Seck bu forum civil. Mhm. li waroon naan jokkoor maa joor jokkoor moom seen diggante. <laughs> président Macky Sall dafa wax Birahim sekk wax delloo ko président Macky Sall xëy ne ñi nga xam ne dañu jor xeer nguur maanaam di xëy rek. di sànni xeer nguur mhm. di wax loo xam ne arrangé wul nguur mhm. nguur lu mu def ñu ne baaxul taxaw témm ci ne mhm. bëgguñu li nguur di def boo lekkook nag sax mel ni kuy songu nguur président Macky Sall ne bu ñuy seet bay xool loo xam ni moom mooy delloo ak ak yelleefu doomu aadama ginnaaw ci réew lii la respecté wun institution ñu ngi dal ci kaw nguur gi ñu ngi dal ci kaw lépp loo xam ni it nguur mi ngi koy jëf ci réew te nee na lii day delloo ginnaaw ak ak yelleefu doomu aadama mi ngi ko wax nag ci soixante-quinzième anniversaire bu déclaration universelle des droits de l'homme Birahim Seck bu forum civil ne ko déet président man néew ma dangay juum mais nag damay jàgganti ne ko réewum Sénégal gis nañ fi mal gouvernance yorin bi baaxul Birahim sekk ni ko injustice gis nañ ko ci réewum Sénégal kumba am ndey kumba amul ndey mhm. su mantu defee dañ koy dóor mhm. bu asma defee ñu takkal ko ay médaille mhm. lan moo tax réew mi ñu bëgg koo soppi du mbelaan ñëw fi doole di tooñ Birahim Seck ni ko beneen bi mooy inégalité yi nga xam ne am na ci réew mi asma yorul. Mhm. mantu yor na. Mhm. lan moo tax ñaari position yi daal di am ci réew mi te ñu gis ni ñi nga xam ne ñoo am ñenn ñi. Mhm. ñi ngi ko foqar ñee ci alal ji nga xam ne askan wee ko moom. Birahim sekk ni ko booy seet li nga xam ni mooy menacé ak ak yelleefu doomu aadama ci réew. lii la. Birahim ni président Macky Sall lii la lii tey moom la xëyee turbine yéen kaay xëyee turbine yéen kaay nag daal di xëyee. élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi koy daal di waajal wàllu démocratie goo xam ne daanaka dafa daal di delti ginnaaw ndax fair play la wala leneen en tout cas gis na ne bu élection jubsee wàllu xastante yi waxante lu ñaaw yi ba sax manipulation day daal di am ci réew mi loolee la tribune yéen a kaay xëy sampo laaj bi euh, tribune yéen a kaay nag daal di xëyee ba tey ci Aloïse Jules Diouf mi nga xam ne daal nay bàyyi candidature am ngir daal di dem fekki Bougane Gueye Dany ak euh, coalition gëm sa bopp ci ñaari weer des ci élection présidentielle yi solo. élection présidentielle yi day jub si. ñu gis ne ba jëm jël fiche parrainage jotee ci benn bés rek presque lu ëpp deux cent personnes jëli nañ fiche. Mhm. tey jii bi déposé caution jotee daanaka lu matul quinze la ñu gis ne déposé nañ seen i caution. Mhm. ñenn ñi nax dinañ jël ay porox ndoll yoon. ñenn ñi naan sama base nee nañ lii ñeneen ñi naan lii waaye Aloïse nag moom dafa ne. Mhm. tey jii dafa jël courage am à deux mais dem fekki coalition gëm sa bopp teggi candidature am bi fas yéene ànd jeeg président Bougane Gueye Dany ci élection présidentielle yi leneen lu tur bi ni yéen a kaay xëyee moom moo di Ousmane Sonko. Mhm. ni ki ëllëg. lañ koy daal di xamal fu mu féetee yéenekaay bi ne euh, ëllëgu Ousmane Sonko ci politique ci réew mi mi ngi ci loxol juge bu tribunal hors classe bu Ndakaaru Abdoul Wahab ñaaw it daal di nañ koy jox kàddu mu daal di euh, daal di ñëw ci li nga xam ni moom moo di turbine yéenekaay Le Soleil yéenekaay li ma ñëwoon sànq euh, ci la ñëwaat. muy président Macky Sall ma nga xam ne ma nga taw taxaw ca turbine bu mbootaayu xeet yi président Macky Sall nag. jëfalante maanaam wuute nga xam ne am na ci àdduna loolu lay défendre mu xam ne dañu Sénégal boo ko méngalee ak yeneen réew ci àddina daanaka peuple lañ boo xam ne dañoo libre xam na ni am na suñu indépendance nit yeneen réew yoo xam ne nekk nañ ci àdduna wërngal këpp président Macky Sall nekk benn taarix bokkul ak moroomam loolu nangu nañ ko benn histoire bu réew bokkut ak moroomam président i Sall na tax na ba réalité socio-culturelle yi yemul yow asma bu ñu lay maye da ngay anytime mhm. tubaab yi lu ñuy def <laughs> enterrement de vie de jeune fille. <laughs> donc réalité sociale culturelle yi dara bokku ci ak sa morom. c'est vrai tey jii moom président Macky sàll ne. Mm-hmm. bu ñu bëggee nag ne monde bi benn civilisation moo fi baax moom la ñuy doxal. Mm-hmm. loolu doxalul am réew. Mm-hmm. sàll ngaa lam tooro Bourguédé. kan la Macky Sall. li mu discours fii ci soleil bi ak li mu wax ca tribune ba sànq ak Birahim Seck. loolu la de. pensée unique la fa wax rek yéen waa société civile léegi waaye xamul kuy Birahim Seck. Ibrahima de tontu na. amul ne waa Géejawaay la demal yëgale. waa lan la. waa Géejawaay la. <laughs> amul bàyyi. firi rek bàyyi. ñun ñu dëkk ak moom sax ñemewuñ ko. est si dëkkul foofu. laas yéen kaay dafa ñëw. ci Ousmane Sonko. mooy li ma doon wax sànq mooy délibéré yi nga xam ne avocat yi ñëw nañ ci. wax naa la ko lu dangereux la ñuy def ci réew mi. mooy avocat yu Ousmane Sonko yi daanaka boo dégloo ci seen discours démb xam na suba fu verdict bi jëm. avocat bu état bu Sénégal boo dégloo daanaka ñoom it am nan yaakaar ci verdict bi daal di favorable à ñoom lii nag loolu la las yéen kaay xëyee ni ki tey las yéen kaay nag ngi wax ci maître Moussa Diop yéen kaay bi neen na def attention de mu ngi ci yoonu kaso. mi ngi ci yoonu mi ngi ci kaso nee na. war nañ ko defeere ah mu ngi ci yoon bi de. xanaa moom yorutoon preuve moom laa la ah. moom brandiroon na ay preuve wala preuve yooyu dafa doon. loolu nag dinañ ci ñëw ci libération. Mhm. libération yéenekaay nee na mhm. maître Moussa Diop na ay preuves mhm. l'observateur ñëw na ci mhm. nee na coowal maître Moussa Diop li Aly Ngouille Ndiaye woo nañ ko ci Ousmane Cissé mi nga xam ni mooy ex directeur des miine ak géologie moom tamit sûreté urbaine convoqué na ko ngir ñu gën a déglu dëgg-dëgg fan la cooloo lee di maître Moussa Diop di mujjee waaye libération yéenekaay dafa ne enquête bi li ci mujj lii la daanaka